donc ñi ngi pour euh, ANAM yi nga au poisson. le président de la république fait leen instruction mobiliser budget 2 milliards 500 ci euh, maire de la ville monsieur le maire conseil municipal bi voté une délibération à l'unanimité d'ailleurs ci magistère taala ñi ngi soga am projet bu ñu voté à l'unanimité moy affaire marché au poisson ndax ñariñu Thiès la bëgg-bëgg wa Thiès la bëgg-bëgg marier yi la bëgg-bëgg population yi la donc tay ñu ñëw fi and ak wa ANAM ak architecte bi nga xamni ne ñëw pour mëna euh, taxawé liggéey bi ñu ñu nuyu le président son excellence le président Macky Sall ñun ay acteurs de développement lañ bok ci ñi nga xamni ñu ëpp ci li ñuy créer emploi ci Thiès particulièrement ci Sénégal 77 ba léegi ñoo ngi àndoon ak ñun suñu bàyyi nekk ci ay conditions yow nga xamante ni ab acteur de développement waru ci nekk parce que marché central au poisson digne de ce non seulement ñun acteurs yi dañoo ko soxla mais la population de Thiès dañ ko war a am kon li tax ñuy sant Macky Sall su yalla dogalé mom ñu jël 2 milliards 500 millions mu non ko jaaralé trésor public muy jël temps wala muy am ay protocole wala lu nekk di ci xew mu jaaralé ko ci anam bëgg mu gaaw ci ñu gaaw ci jot pour que liggéey bi mëna taxaw kon ñun dañ koy sant mais nak wolof dafa wax ni su lëg lekkee alom nako ko gërëmi ñu bari jaar nañ fi ñu di ko bëgg te fekk duñ ko mun a am kon ñu ngi remercier aussi Talla Sylla monsieur le maire monsieur le ministre di ko ñaanal yàlla duggam ci dëkk bi am na solo trop soo xoolee benn zone interdite ngi woon fii à Thiès muy la route de Jaxaaw lampadaire yi ñun 4 heures du matin la ñuy jóg li ñu am foofu la ñuy nekk fa la ñuy débarqué mais 4 h du matin lañuy jog defal nañ fa ay lampe bu ag foofu japp na ci projet and ko ak euh, équipe bi mu ko andalon ba def fa ab tali bo xamante dem na ba ci voie contournement ba andeti nañ fi ak conseil municipal am japp di sonn guddi bëccëg suba ngone fu mu toog ak président fu mu toog ak président mareyeur limi wax ak ñoom moy nan lay def ba nga na marché central au poisson kon talaw aussi ñu koy sant diko gërëm te di ñaanal ci turu acteur yi nga xam ni ñooy acteurs jaaykatu jeen yépp ci ties place bi nak nga xamni ni lo xamanteni war na ci ci ay kilifa diko dox ak diko wax ci administration bi ci niveau euh, euh, urbanisme impôt et domaine li ci wara aju lepp pour këyit gi war a tegu ci yoon teg nañ ko ci yoon ba def ko defin woo xamante ni sax benn loxo war waratu ko mën a foqati di ko jëme fenn fudul ci mareyeur yi kon nag na ñëpp yëg ni ñu ngi interpellé le président le la république wax ko ni ko ak suñu ministre Omar Gueye sonn na ci dafay jóge Alioune Ndoye yow remplacé ko parce que état noonu lay doxee mais nag ñoom ñëpp bu ñu àndee sant leen gërëm leen ak seen ay directeur cabinet ak ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ñëpp ak municipalité bi ak ñi ngi ci jàpp y compris dene ba Ahmed la Latir ak ñi ñu ko séqal ñëpp nga xam ni teg nañ ci seen loxo ñu ngi ñaan président mu xam ni site bii RIC waay na fexe ba balaa ñoo àgg avril di jeex nañu teg suñu première pierre bii te yii nga xamante ni moom lañ fi duut duutal te mu nekk ay tapale te teguwul ci yoon mu fexe ba lool bu mu fi am ñun nag ay acteur lañ ne boo seetloo Thiès li dëkk bi di yëngu yëngu yëngu yëngu Thiès kenn gisul Thiès lu mu def damuñu xat taaluñu pono defuñu dara uniquement parce que ñun liggéey lañu xam ay daankatu doole lañ te créé nañ emploi fii y a plus de 2500 personnes y compris ay góor ak ay jigéen la jeunesse moo ci ëpp doole xoolal jeunesse bi 4 heures du matin la ñuy yeewu ñoo ñëpp c'est des jeunes vendeurs de poissons ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ 4 heures du matin la ñuy donc nag ñooñu ku nekk ak ñoom préparé leen bijou yu mel nii kenn waru ko yàq alors pour mu baña gudd trop ma ngi sante ñep di sante dinaa si woote bi jëm ci jitu rew mi ndax da ngeen xalaat xëy na wala ngeen tit ñu foqati ko seen loxo wa dañu xalaat xam naa bi sax du mëna am nak ndax duñu dinañ jaral lu mu wara jar té dapp na ni président fi mu toll ak jeunesse bi fi mu ne si su ko defoon bu paré mën na créer du du 2000 ah, à 3000 emplois mën na créer fi té lool c'est à vérifier mu ngi ni li wax lu leer la nek lo xam lañ koy lambatu donc nak kon dama japp ni président warul sétane ay nit yoo xamante ni dañuy jógee fële pour sal ay intérêt ay bopp kese ay individualité ñu jël ko di leen ko attribué te ñun ñu ko moomoon ak suñuy këyit ak li ñu war a def lépp ko di ko jox keneen jàpp ma ni loolu président ak son ministre dañ ko seetaan dañoo jàpp ni bu fekkente ni am nañ un marché central digne de ce nom ñun ñëpp ñu war di fi xëy si fii di fi ñëw jaay ku soxla sa jën ñëw sangu ba set tawal sa oto bu rafet ñëw fii soxla li nga soxla ci jën marché bi marché international la bi marché international là. national du communal du régional mais international a sous région bi de Mauritanie nous, dañuy même marché nous condition nous, nous, nous, à plus forte nous nous, nous, nous marché nous, nous, nous, donc nous, nous, affaire nous te nous, nous, nous nous nous, nous, néew na beneen acteur bu koy contribuer ci dëkk bi. bi bi mu amee secteur yëpp paralysé nañ ba mu des suñu bos te bu jën amatul woon bu jën jaayatul woon rek taax yi tëj kenn dootul rek mais pandémie bi li muy xew yëpp at mi am yëpp jën yaa ngi fonctionné nit ñaa ngi am jën di lekk jën normalement te loolu bu amuloon rek àddina tukki. ah li nga xamante ni moom doon na wax mooy li nga xamante ni moom la ñu indil tey. te kees yàgg koo mëbët muy marché au poisson boo xamante ni jaay nañ ko fu ne wax nañ ko fu ne tey jii ñi nga xamante ni dox nañ ci bañ sotti tey ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi ciy jiital nag président Macky Sall moom mi nga xamante ni na ci bopp bi di jiital ki nga xamante ni yàlla bu sottee ci loxoom la jaar mooy Talla Sylla au maire au ministre aussi parce que nag wax dëgg yàlla ku ne xam na ni kees waxuma la marché au poisson waaye wax digg yàlla jot na bu càgg ñaam ko ndax jooy nañ ko fu ne li nga xamanteni tay nak ño ñoo taxaw ci bërëb bi ñun ñu sib bi fi la yaay de nga la way ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ku julli war nga ñaan ndax li yalla nako yalla sotal yalla nako yalla sotal yàlla ñu ngi remercier ñëpp ñi fi jaar ñëpp ministère yi fi jaar te bëggoon ko te amuñu ko ku melni ni Omar Gueye bëggoon nako ko dox na ci ku melni ni Aminata nga Ndiaye yalla dogal na ci toogaayam yàggu fi mais dox na ci yaay de ba ci Omar Gueye ni nga xamanteni ni bërki de min dajem ndar te teggu bël ba dañ ko wax président mun ma boo leen de nelo len ndax caisse mom ci lu ko kon am ngeen marché kon na wax dëgg yalla amatul lu ñuy wax ñu xaa di ñaan suñu borom sotal ko sotal ko bu ñepp fekk ko bañ ko inigré inshallah allah daal la ñuy ñaan jërëjëf. man la madame la maire Absalaye soirée nek femme mariée responsable mariée yalla dogal man nek conseil municipal maire Ville nek commission al à ma maa fas waxtaan ak yeen parce que man damaa nekk nag yor ñaari casquette xale yaa may tooñ naa ma foo ñëwal maire mi man leen ñëpp laa ñëwul parce que nag man bu ñu may xam mariés moo xam tax ñu xam ma kon nak nit du bàyyi cosaanam maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di nuyu président de la république di nuyu Moussa la maire Talla Sylla wax bi dama koy teg rek ci waxu président Abdou Diaw ak président Habib ndax daanaka la ñu wax yëpp wax nañ ko ndax lii nag mën naa ne yàgg nañ koo wut yag nañ ko soxla kenn ku ci nekk am nga yéenee def kon bu ñu demee ba tollu fii président comme ni ñu ko waxee boole ñoo ñi nga xamante ni ñu fës yéene ñoo defar marché ñu def lu dul sant ko gërëm ko ñaan yàlla nag yàlla mottali ko ndax jaam nag day sabablu waaye yàlla mooy mottali kon nañu ñaan yàlla yàlla mottali liggéey bi. ñu gërëm monsieur le si Talla Sylla nga xamante ni ci lii ñun ba nuy door a falu. ñu dox jox ma commission bi am na ci équipe boo xamante ni fii la ñu ànd ak ñoom jana ba booba fii melul nii ak ñoom aman mbay dañu doon xuus dañu doon aj suñuy yére bi ñuy dugg fii pour mu wan ñu sib bi da ko fas yéene defar marché poisson kon bu ñuy diree ko ba agsi fii ñu mu di ci nekk ministre di ci dox ñëpp di ci dox dañuy sant di gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yeggalee liggéey bi ci barke yonent bi ak équipe bam bii mu àndal nag di ñoom Janaba directeur cabinet chef de cabinet ñoom Aman Mbay équipe bi macha allah kuñ ci ni mareyeur yi dañ ciy sawar ndax xam na ni Thiès dafa toll ci am marché poisson. kon bu ñu demee ba agsi fii ñu ngi wax président de la république ni comme ni ko ñi waxee ndax gis naa fi nag ay borne yoo xamante ni xaw ma borne yi lan la te Sénégal nag dañoo bari ay nit caaxaan. te nit boo leen seetaanee caaxaan yi day daal di bëgg a wat dëgg te caaxaan war te mën a wat dëgg ndax fekk sib bu mel ni ñu jox ko ay nit ay acteurs de développement ay millions doomu aadama di fi xëy parce que nag bu ñëpp mel ni mareyeur comme ni ñu ko waxee kenn du toj pono kenn du sonal président ci employé ndax nag mareyeur yi saa bu ñu xëyee dañuy xëy di liggéey di joxe dépasse gàddu ay nit boo xoolee marché Thiès lu mat ñaar fukki oto nga fi oto bu ne mën naa ni juróom fukki nit gàddu na ci ñoo xamante ni oto ba moo leen yoreel dépasse moo leen yoreel seen kër macha allah kon ñooñu kenn waru leen a saggane kenn waru leen a bàyyi caaxaankat yi nga xam ne ñoo dee ci réew mi kon ñu ngi interpellé président la république ni ko daal ñun ñu ngi taxaw fas yéene ànd ak ñoom accompagner leen. ñu fas yéene jël sibbi jox ko ñu koy liggéey ñu liggéey ko liggéey bu rafet ci liggéey bu gaaw te bu paree dinañ xam ne mareyeur yi amuñu ay caaxaan ndax mareyeur du ñaan kenn dépasse dañu xëy 4 heures du matin di wàcc 2 heures gàdduwaat seeni i saak dem géej ba 10 heures ku am kooku ci sa dëkk te Thiès nag amul usine amul dara garage la ñu am ak marché poison kon ñi ngi wax ni ñi ngi ñaan président liggéey bi nag gën a gaaw ndax yaakaar naa ni ñii nag moom du yeexe ci ñoom liggéeykat yaa ngi nii entrepreneur yaa ngi nii macha allah ñu yor marché bi kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla sottal liggéey bi te ñu gaaw te moytu caaxaankat yi nga xamante ni ñoo bëgg a teppi réew mi te caaxaankat wër te teppi am réew dëgg toog wasalaam